nappee di waaw non nappee man kenn mënu maa napp nag man xam na ma mënu ma kenn mënu maa napp <laughs> d'accord léegi léegi euh, dañuy ñëw ngaan baal ma parce que aussi mel ni dem nañu xool askan bi mhm. ñu am luñ ci wax dañuy dem xool loolu daal di dellusiwaat ci plateau bi bu fekkee élément bi pare na ngeen euh, sànni ma ko ñu xool ba xam askan wi seen réaction par rapport ak sujet bi ndax da ci am solo loolu andi macha allah dañoo def élection xale yi ñoo ko bëggal seen bopp même man nii sax ci élection yi moom laa voté waaye man cas bi ba ma ko déggee dama ne affaire bi moom ay dil la xam nga loolu amul parce que Sonko moom man vraiment teguma ko genre nit boobu maa ngi koy dama nag li may ñaan mooy yàlla na ko yàlla génnee ci affaire bii. non ñoo ko xam rek ñoo ko xam rek waaye bu bu ñu demee ne ah, bàyyi góor ñi dem ci jigéen ñi koy maasaat. bu ñu ko jëlee xam ne ma xam na gënu ko takkat deram kan dafa yomb torop dafa yomb. kaw Ousmane Sonko bi de ni ma ko gisee mooy coow li bari na torop torop torop mais nit ku nekk war nga ci mën a joxe sa xalaat man nag eh, xalaat bi ma ci am comme buggoon ko ci joxe mooy eh, il faut que sénégalais yi reconnaître benn affaire kenn erreur am na te pour man Sonko def na erreur. bu mag ci politique parce que damaa foog ne quelqu'un bu mel ni Sonko nga nekk euh, troisième position ci élection présidentielle ak tey dayo bi mu am waroon euh, suuraale ka yi carrément nit la koo xamante ni mu ngi koy bàyyi xel kon warul di dugg ci erreur yoo xamante ni di dem ci ay massage yoo xam ni ban na fay tendre pièce am na wala amul nag parce que amul kenn ku ci mën a indil firnde ndax euh, souvent damay dégg ñu naan troisième personne bi troisième personne bi te troisième personne bi déglu naa ko bi ma ko déggee mu wax ci benn rajo moom li mu xamle mooy que ni bi Sonko ñëwee rentré moom euh, dame bi elle s'appelle Adji Sarr ko may ñu erreur bi Sonko def waru woon nangu Adji Sarr di wax euh, troisième personne bi naan ko may ñu di des ñoom ñaar kon ñoom ñaar am na lu am seen diggante loo xamante ni si lu kenn mënut a xam la. kon donc man dama gën ni Adji Sarr bu demee ba am sañ-sañ boobu que ni Ousmane Sonko da ko violé néew ma nag violé am na parce que ba tey fi may waxee yow gëw ma loolu waaye nanu gëm ni am na benn relation ñoom ñaar bu am ci seen diggante boo xamante ni si lees waxu la lu kenn mënut a xam. man sama yaakaar man jàpp naa ne piège la. waaw parce que am na la nga xam ne ni maanaam buñ ko maanaam am na ay cas yu fi xew. lu tax demul demul yu mel nii yu bëri ñu fi xew lu tax demul eggul fi mu egg bu Sonko bi rek egg fi mu war a egg ab wër àdduna bi yëpp loolu moo tax ma jàpp ne ne piège am na ci quoi ci sama xalaatu bopp. salle de massage loolu moom damaa dégg dégg daal nee na médecin ko ko pour mu dem foofu si ma dégg waaw salle moom ñëpp a fay dem waaye jigéen boobu moom même bu ak Sonko sax ndax nit moom dangay am sutura. xam nga mën nañ am nag ñuy génn wala dara nekk seen diggante waaye nit moom daal sutura baax na si mënoon na yem seen diggante ñoom ñaar rek ñu xam ni ñu koy gérer waaye nag xam nga suñ ko ku sii moom du jàmme borom. loolu mbaataan moo ko fi yóbbu rek. waaye jigéen ak pexe jigéen nag. kan dafa garaaw daal dafa yéeme daal. erreur bi mu def muy Sonko tey dayo bi mu am. waroon na dépassé di dugg ci ay massage yoo xamante ni surtout ci benn kër la. xam nga dèjà man daam bi ni ma ko déggee du professionnel benn daam la boo xamante ni euh, jël nañ ko recruter ko ñii nee nañ tailleur la woon ñii nii xam nga kon Sonko waroon na calculer loolu yëpp kon moo tax ma ni la am na benn faiblesse bu am ci digganteem ak ndaw si il faut ñu nangu loolu. Sall dem Maasas kilifa dafay dem lu tax kilifa di fa dem lan mooy kilifa. lan mooy kilifa lan mooy kilifa kilifa yaa koy te nit ñi daf na am nit ñi dañoo rawante dañoo bokkul ay ay maanaam ay gis bañ na comme ni ko nit bañ na jàppee noonu boppam parce que am na am na am na ay doomu aadama ya nga xam ne rëyuñu maanaam bëgguñu sax affaire yu rëy yooyu mais ay kii noonu war na dem mu defar bu yaramam dee métti na dem viol jabaram mënu ko ko defal su jabaram mënoon massage la ko waaw bu yoree ñaari jabar su fekkoon ne ne seen ay jabaram mën nañu massage mu dem yem ci ay jabaram massage mais massage dañ koy jàng di ko defal nit loolu moo tax mu dem fa. déedéet ah man de viol bi moom wax dëgg yàlla gëmuma ko moom. Sonko moom du genre boobu viol bi moom man nag damay wax rek te yàlla rek tax waaye man gëmuma ko. politique la tey Sonko euh, bu ñu fàtte que ni moom daaw ñu may état dara occasion bu mu doon am da koy exploité kon donc tamit mun nañ ni tamit même bu dee état bi la tamit d' accord na nekk ñoom mën na nekk ay ñoñam mais bu ñu amee occasion boobu moom it dañ koy exploité mais occasion boobu nan nangu ni moom moo ubbil buntu yi état bi. bu dee état bi ñoom ñoo ko programme moom moo ubbi bunt yi. non du wax ne ne état bi moo ko gasal kam mais damay wax ci sama xalaatu bopp du wax ci xalaatu état wala may wax sama xalaatu bopp laay waxee. du wax ne état moo def li wala moo def li mais man daal li ma gëm ba gëm man sama bopp man loolu ñuy wax man amul man. am na yoo xam ne tamit li nan ku dee sa marché ba yaa tàggee sa bopp loolu tamit mën na cee nekk waaye affaire bi daal xaw naa luus waaye li gi daal kenn xamu ko ku yàlla yàlla rek moo xam. sangam bu mu demee si euh, jigéen ñi bàyyi góor ñi fële dañ ko tuumaal xam ne gaan set waaw doy na waar xam nga xam nga jiiñ jiiñ maanaam jiiñ xam nga jiiñ da nga naan moom a def lii mais wóoru xam nga dañuy def enquête ñuy enquête bu fekkee ni ci dëgg lañuy ñuy enquête nañ ci dëgg te ba a def far ak far bu ñu enquêté ci dëgg dëgg bi dina génn te xam ne man li ma jàpp man kooku ñuy wax noonu Sonko violé wu ko. man daal bu ne moo xale bu jigéen bi xëy na am nañ benn relation particulière boo xam ne dox na ci ñoom ñaar ba xale bi sañ li mu sañ d'accord naa mais kantaan dama demoon pour faju ji rek ñu tuumaal ma accuser ma viol ba naan ay daanu naag daanuwul ak ngeen daal ma ci terme bi vraiment c'est compliqué. état bi moom am na ci tànk moom bu baax a baax a baax a baax parce que lii boo xoolee dëgg la nag dil bi salte na. dil bu salte la nu dil dil bi moom dafa salte mais moom moo leen ko yombalal loolu laa bëgg ñu comprendre ko moom moo leen ko yombalal. léegi dama bëgg a xamal sénégalais yi nit bokkam rek la am Sonko xale bu ndaw la président bi ñu fal ndaw la ñoom ñëpp ci réew mi lañu nekk ku ci nekk yaa ngi wut sa réew mu jëm kanam nañu maye lii dañu wàññi ndëkku sos waxal nit bu dul dëgg. te damay wax ne mbir mi moom dafa louche mbirum politique la mbirum politique la man nga sama man maa ko wax Sonko deful dara nag mais nag li may ñaan Sonko ak di ko ñaan ñi nga xamante ni ñoom lañu ñu àndal nañu dal nañu dal nañu dal te yàlla tax yàlla mooy mooy topp ci mu ñu nekk wóor na wóoral yàlla ni li ñu tuumaal Sonko bu lu nga xamante ne du moom yàlla dina ko àtteeg ndaw si àtteeg ak waa réew mi man li moo doon sama wax te danaa ko wax wasalaam.